macha allah euh, sunu ñaari sponsor yi nga xam ne nii wax dëgg neex yàlla ñoom ñoo ñuy accompagner ci jus am solo yi Matia jus na moon nañ la trop ah en tout cas tu te faisais rare mais quand euh, la ci ci réveil bi euh, Matia jus nag bu ñu ko fàtte benn yoon en tout cas ci fête yi surtout fête fin d'année yi da ci baax boo ci commandé Matia jus nag boo ko bëggee contacter mën nga ko woo ci 77 numéro bi benn la 322 54 52 mu doon ay jus yu neex na tamit grand modèle comme petit modèle yii ni ñu yor nii mais également euh, les délices de euh, Ngoulé délices de Ngoulé xam nga ne fan yëpp aussi ñoo ñuy accompagne ci réveil bu ñu ndekkee pare moom la ñuy naan ci kër gi yenduwaale ko et mun nga ko dugal sa frigo euh, commande teel cee commandé avant fête fin d'année moom tamit ci numéro téléphone am di 77 408 93 09 di les délices de Ngoulé alors sans plus tarder Seydina Omar Ba ñu ñëw jukki li ëpp ci yéenekaay doore ko ak Walf Quotidien Walf Quotidien dafa xëyee fësal lu jëm ci élection présidentielle 2024 yi ñuy dëgmal nee nañu fu toll ni waa parti Pastef li ñu ñeent ñoo xam ne ay moustique ay moustique mousquetaire la noonu la ko yéen kaay gi xëy fësalee dañ jàpp bu dul Ousmane Sonko rek mën naa doon Bassirou Diomaye Faye mën naa doon Habib mën naa doon ki nga xam di Cheikh Tidiane Dièye yéen kaay gi loolu la xëy tey ji daal ci amal ab seetlu waaw yéen kaay gi di yor yor dafa xëy

xam ne kay na ko fësal te mooy euh, maître Moussa Diop bi bind ab bataaxal jébbal ko bâtonnier de l'ordre de Paris la muy sàkku daal mooy mu wax ak wax ak nguuru Sénégal ñu bàyyi ko ndax fu mu toll nekk di ko jaay doole yéen kaay gii di suuf ci loolu la xëy fësal. mandat yéen kaay. mandat yéen kaay xëy dellu si waat gi ne am na si ñoo xam ne nii. yéen kaay gi ne am na si ñoo xam daanaka ay hommes système. Mm-hmm. yoo xam ne nee nañ fu mu toll nii deful ndànk Sénégalais yi dañ leen dudd ndax fu mu toll nopp ñu ngir wàccal ay candidats yoo xam ni ci système bi la bokk noonu la ko yéen gi xëy fësale réintégration Ousmane Sonko ci liste yi neen daal fu mu toll état bi Sénégal jël nañu mbir yi daal di koy dellowaat maanaam dellowaat compteur bi ci dara mhm. ci noonu la ko yéen gi di la mandat xëy fësale yéen ci lu jëm ci dépôt candidature yi la yéen gi ne neexul ba neex waa juróom-ñaari saa ñu ngi tàmbalee appui. di récupérer li nga xam moo di candidat yi loolu nag moo tax fu mu toll nii bu ñu xayma ñu ngi ci téeméeri nit ñoo xam daal sab déposé nañ seen candidature jëm ci élection présidentielle yi ñëw noonu la ko yéene kaay gi di la tribune xëy fësale enquête yéene kaay gi di l' enquête ne présidentielle 2024 yi ñuy dëgmal nee nañ fu mu toll nii lu ci solo ak téeméeri dossier moom la déposé te fu mu toll nii am na si yeneen yoo xam fu mu toll nii mu ngi nekk en instance ñu ngi nekk di ko di ko di ko luñutu kaay kon ñu ngi dem ci élection yoo xam ne ni bulet ñu am nombre de candidats yu ni mel noonu la ko yéen kaay gii di l'enquête xëy fësale waaye lu ciy mën tam candidat lu ñuy bëri bëri euh, doublon yi ma nga fi gi xëy fësale nee nag doublon yooyu nag fu mu toll nii moom moo tuutal candidat yu bëree baree bare ba tax kenn ku ci ne Ah, ma nga cay euh, loolu moo leen jural ci tànge yéen kaay gi moo xëy fësal lu jëm ci candidature kii di euh, Karim Meïssa Wade yéen kaay gi ne euh, pour mu jàll dana xaw lu jafe ndax am na amande gu gu tegu ci ndodom mu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñett milliards ci francs CFA noonu la ko yéen kaay gii di critique xëy fësale. 24 heures di wax ci ndajeem xelukaay jëriñ bi nga xam ni président Macky Sall doon na ko jiite ni ki démb ndaje moom mooy nag occasion la autoroute yi ba ci wàllu eh, yoonu saxaar gi yéene gi ne président Macky fu mu toll daal dafa bëgg a fësal li nga xam ne moom la jota liggéey fii ci biir réew mhm. noonu la ko yéene kaay di xëy fësal ah, eh, mhm. président Macky moo ko réceptionné ni ki démb Euh, yëkkati na ay kàddu ko daal di sàkk ci gouvernement bu Sénégal ñu def seen kéem ci lay kattan ba lépp daal loo xam ne ay projet la ñu am ko ci wàllu yoon wi mm. am ko ci autorité ak yeneen yu ni mel ñu fexe daal ba lépp yemb doon ñu la ko yéene kaay gi di la Soleil xëy fësale euh, yéene kaay lu ni mel président Macky Sall réceptionné lu ci tolloog fanweer eh, lu ci ngi téeméer ak juróom-ñaar fukki bus yu bees nañu la ko yéene kaay gi xëy fësale yéene kaay gi na xëy samp laaj bëgg a xam est-ce que du Amadou Ba euh, est-ce que du Mouhamed Abdoulaye moo di candidat président Macky Sall noonu la ko yéenekaay gii di l'évidence xëy fësale. ñoo dem ci bés bi le jour. Euh, ci euh, jamono joojule nga xam président Macky Sall ma ngay euh, réceptionné bus Dakar dem dikki jamono joojule Amadou Ba moom it ma ngay réceptionné li nga xam moo di bretel bu bus rapide transit noonu la ko yéenekaay gi xëy fësale léegi nag ouverture officielle bi nag ñu ngi ko jàpp ni fukki fa ak ñeent ci weeru janvier. Euh, ki ko fas ne ubbi nag di président Macky Sall noonu la ko yéenekaay gii di bés bi xëy fësale. ñu dem ci le quotidien yéenekaay le quotidien yéenekaay xëy dellusiwaat ci lu jëm ci euh, décision bi nga xam ne ni. Euh, doyen ba nekk fële ci euh, faculté des sciences jël na ko daal di wax ne lu jëm daal ci cours dañ ko fas yéene tàmbali ni ki ñetti fan ci weeru ko janvier donte la sama conseil académique daje wuñu joxe kon jox ko digal gi nu mel waaye daal moom décision boobu la jël euh, yéene kaay gi xëy dellu soit ci décision boobu nga xam ne ni ka jiite faculté des lettres jël na ko noonu la ko yéene kaay gi jël ko tëjee xëy fësale bés ni tey ci la dëdd woon àdduna mooy Serigne Saliou Mbacké boobaak léegi nag def na fi lu ci tolloog fukki ak juróom-benn. Serigne Saliou Mbacke noonu ab nekkoon nit ku baax. Mhm. nekkoon nit yàlla dundam ak liggéeyam yëpp mu ngi ko jëmale woon ci jaamu borom ak liggéeyal euh, bàyyam ji di sëñ Touba. Mhm. Euh, dund ak liggéeyu borom jëmm ju taasu fi jojilee moom la yéene kaay gi direct news xëy tey ji di fesal macha allah stade yi kay. Euh, CAN 2023 xëyee dellusiwaat ci Sénégal ndax mën naa sant bu Boulaye jaam li wéetoo daal mooy Boulaye Dia moom du bokk ci Coupe d'Afrique bi di ñëw mhm. yéen gi nag ne fu mu toll nii lii nag bu fekkente ne am na dana chambouler euh, plan yi nga xam moom la us Aliou Cissé amoon euh, tax yéen kaay gi xëy tey ji daal di ci amal ab taxaw seetlu wax ci combat gi nga xam ne war na koy bëre ni ki altine yemoog ñaar fukk ak juróom ci weeru décembre euh, combat gi combat gi ña ni ki aljuma ji passé mhm. ni ki bi ji passé diggante Jackson la ak ak sox Jackson daan sox jël bu amul benn werante euh, noonu daal la ko yéene kaay gi xëy fësal. jërëjëf Seydina Omar Ba ci jukkib euh, yéene kaay yi comme d'habitude nag euh, xibaar yi bari na loolu te wute xanaa peut-être ñu xool. Mm. wala làmb fan la ñuy statuer ci bëccëgu tey. bon li ci gën a fës. Mm. mooy affaire Ousmane Sonko ah. oui. moo ci gën a fës. Mm. dépôt candidature mm-hmm. aji mën nga ñëw. le a que aji installé wu. installé uh-huh. bonjour. bonjour. soleil à moi. Comment tu vas, Adji? Ouais, va bien. Tu nous avais manqué la semaine passée. oui, oui. Ça se faisait sentir quand même. <laughs> tu es importante quand tu viens pas, oh, ça se fait oh, sentir. <laughs> Mais comment tu vas? Tu es très belle ce matin. tout comme toi et la charmante Salma Ipa. di ziar monsieur le maire. Mm-hmm, mm-hmm. delloo ziar. delloo ziar. léegi mm-hmm. euh, ziar baax a baax aji normal la foofu naka <laughs> euh, tout à fait wax nga ko léegi léegi sax euh, tey ci rubrique environnement ak Miss Alam gi daañu waxtaanee jafe-jafe wàllub assainissement en tout cas ci diwaanu Grand Yoff du lu ñuy nettali kenn parce que dañu koy jànkuwante di ko gis tout temps tax ñu ne faaw ñu indi ci ay autorités yu ciy waxtaanal xool càmbar gi fan la toll El Hadji euh, Omar Gueye moo ñu def honneur tey sees suñu ci réveil bi euh, moom nekk secrétaire municipal bu commune bu Grand Yoff monsieur Gueye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax dalal ci réveil. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ñëpp ku ci nekk turam ak santam. Mhm. di rafetlu lool émission bi nga xamante ni moom la ñu euh, jagleel. en tout cas di leen sant bu baax di nuyu waa Grand Yoff di nuyu waa Dakar. d'accord incha allah ci kanam ak jàmm li nga xam ne di mhm. moom moo di xibaaru tey gi. Ah. li ñu xëyee ci xëtu sinon Mor Ba kon tey euh, maa ngi dégg sànq nga ne euh, xibaar bi benn la mooy peut-être a d'investiture bi nga xam ne bëgg nañu ko tënk ci candidat bi lay di Ousmane Sonko waaw bon ñoom candidat à la candidature candidat à <laughs> ni ko waxee bon ñoom jàpp nañu bés bi ñu ngi ko jàpp ni ki fanweeri fan ci weeru décembre ginnaaw suba euh, maanaam ginnaaw suba ci lañ ko fas yéene investir fa la nga xam moo di ci ACAPES bon ACAPES nag ñëpp xam nañu benn terrain la boo xam ne nga nekk fële ca Parcelles Assainies mm. Euh, fief la la et puis Kwaakor gis tamit. ka nga xam ni moom mooy fay maire euh, di euh, Jamil Sané moom fa moo fa nekk maire. te moom Jamil Sané mu bële boo xoolee xool depuis huit août ba tey ñu ngi ko tëj daal di ko tëj ci gaso bi. léegi nag problème bi ñu war a posé mooy que lan moo tax ñoom ñu tànn. Mm. ACAPES pour tenir fa seen meeting d' investiture. Mm-hmm. c'est parce que tout simplement bu fekkee ne dégg naa jàng dafa mel ni que dañuy gis ne ne Parcelles Assainies mooy fiefu Amadou Ba. Mhm. te gis nañ ne Amadou Ba actuellement ni moom mooy le candidat bu mouvance présidentielle tabb ngir mu fas leen yóbbu ci élection présidentielle yi di ñëw. Mhm. léegi nag pour wane ne ñoom Amadou Ba fiefam moomu ko il faut que ñu wane ne ñoom ba tey euh, Parcelles Assainies Pastef la sant. maanaam démonstration de démonstration de force. d'autant plus que boo xoolee ba xool wax naa ko Amadou Ba moom bu ñu waxante dëgg aussi. xaw ma lan moo tax aussi mu tànn euh, li ñuy naan euh, Parcelles Assainies def ko mu doon fiefam mais je pose la question jusqu'à présent je pose la question moom lan la liggéey biir parcelle ba waa parcelle actuellement ne bu ñu demee élection waa parcelle duñ ko duñ ko woon mm. parce que boo fàttalikoo ci élection législative yi passé bu fekkee bureau de vote bi nga xam ni moom la watee woon fële ca Patte d'Oie dañ ko faa duma. Hmm. ak benn écart boo xam dafa jéggi dayoo. tout à fait kon tey jii bu ñu demee ba nga xam ni waa parti Pastef dem nañu di fa organiser ab meeting d'investiture. Hmm. en même temps aussi si jamono jooju léegi ki nga xam ne moom moo ko fa gagné woon di Jamil Sané aussi jël daal di koy tëj ci kaso bi. Hmm. mën naa ne ne kooku am na lu muy wax et ci gën a am solo mooy wax naa la ko bërki démb. gis di wax ne ne de force la. dëgg moo tax erreur bi nga xam ne nii xaw ma erreur la xaw ma stratégie la. Hmm. mooy keroog ba nga xam ne nii investir Amadou Ba. ci hôtel le fait que ñoom ñu nangu yóbbu ko ci hôtel man je me pose la question. est-ce que nekkul aussi dañoo nar nekk di préparer pour que waa Pastef aussi seen réunion bi duñ ko amal. c'est une mauvaise communication. <laughs> man xamul dama xamul stratégie la xamul je ne sais mm-hmm. est-ce que taruluñu stratégie boobule pour que bu fekkente ne waa Pastef woote nañu seen meeting parcelle ñu mën koy tere parce que man mënuma comprendre nga am benn candidat bu doy na Amadou Ba mm-hmm. mouvance présidentielle bi daal di koy tabb ne mooy seen candidat nga dem ba di ko investir di ko investir ci ab salon ci ay salle man je me pose la question est war ko ko nangu tamit mais président président Macky moo ko nangu parce que quoi qu'on dise waaw dem ci élection présidentielle mais da war a war a sori doole ah mm. war a war noo tolloo mm. mais c'est dommage daañu investir seen candidat ci élection présidentielle léegi nag maintenant question bi ñu war a posé mooy est-ce que seen candidat bii ñu nar a investir dana bokk ci élection présidentielle yi. Mm-hmm. est-ce que seen candidat yi bii ñu war a investir tey jii neuf points yi nga xam ne nii moom la conseil constitutionnel soxla pour que nga mën a bokk ci élection présidentielle matale na ko. Mm-hmm. mais tey jii bu ñu waxante dëgg bu fekkee ne dañuy wax dëgg rek te yàlla tax effectivement neuf points yëpp motal na ko. matal na ko waaw matal na ko amul double nationalité. non non. <laughs> matal xam nga matal na ko. matal na lépp. parce que ñaari point actuellement ni moo doon posé problème ci Ousmane Sonko. non ah, <laughs> que ñaari point actuellement nii man sama gis-gis. moo doon ci Ousmane Sonko moo doon benn bi mooy. Mhm. problème mu parrainage. te ñoom foofu réglé nañ ko au lieu dem di euh, parrainage citoyen léegi finalement dañuy dem ci parrainage parlementaire fu mu toll nii am na treize députés yoo xam ne nii ñoom pare nañu Ousmane Sonko. mais jotul fiche bi koy remplir léegi loolu hmm. écarté wu na. léegi bi desoon moo nekkoon attestation. oui bi nga xam ne ni moom loo caisse de dépôt et de consignation war a jox Ousmane pour mu boole ko ci ay dossiers mooy cutis parce que boo fàttali ko ba ayib dafee. Hmm. déposer li nga xam ne moom moo di euh, moom moo di moom moo di bi. Hmm. ci saa si gars yi dañuy ñëw daal di rejeté candidature rejeté euh, euh, euh, rejeté caution caution bi ne ñoom comme quoi que ñu nanguwuñu caution Ousmane Sonko mais liy fàtte mooy que bu ay ba ay dafee. di ko joxe caution bu noppi ñoom dañ ko jox benn quittance bu wane ne ay dafee déposé na. léegi nag reçu boobu. Hmm. dafay wane ne effectivement même bu fekkente ne administration bi nangu ñoo ko jox attestation mais je pense bien quittance boobu la war na mën a servir Ousmane Sonko à ce que vraiment mu te ñaar yooyu la gars yi waroon mën a sukkandiku pour jéem koy kii man sama gis maanaam ci wàllu dossier. léegi nag coow li kay mooy diggante bi mooy def am du ak du ci xew. li ci xew mooy que démb agence judiciaire de l' dafa saisir waa cour suprême pour que ñu statuwaat atte bi nga xam ni waa tribunal incourage bu Dakar jël nañ ko problème Ousmane Sonko ci intégration Ousmane léegi nag loolu bu fekkente ne am na bu fekkente ne nangu nañ bu ñu dégloo ci yenn yenn juristes na mën na ñëw mën naa xajamal candidature Ousmane Sonko. Mm, maanaam bu fekkente ne ñoom nangu nañu ubbi dossier bi. Mm-hmm. peut-être mën nañu jël weer pour wax ci. te weer boobu bu ñu teel jël seen temps pour wax ci boobaa mën naa hypothéquer candidature Ousmane Sonko. léegi nag question bu ñu war a mën a poser mooy ndax waa cour suprême ñoom. war ñoo mën a daanu ci jeu pouvoir bi. non ma dégg ne bu fekkante ne contentieux électoral la. Mhm. Euh, datu euh, ak bu mu mënta doon àtte bi dañu koy tënk ci timing bi nga xamante ne moom moom la tënku ci wàllu élection. Mhm. loolu laa yaakaar moo tax dossier yi di gaaw. parce que contentieux la. non xam nga xam nga xam nga xam nga mooy li ma doon wax xam nga xam nga tey boo xoolee keroog ba problème bi amee. Mhm. tribunal a mm-hmm. eh, eh, eh, a su ko defee ci saa si gars yi mën ko statuer xam nga def mais dañuy bàyyi euh, affaire bi dem boo fàttali ko keroog alti xaw vendredi maa lay wax ne actuellement ni euh, agent judiciaire de l'état boo moytu lundi mën a def recours. te bu defee recours loolu mën naa. tardeel wala sax mën naa hypothéquer chance yu Ousmane Sonko am pour pour bokk élection présidentielle léegi nag man question bi war a mën a mooy te bu am solo. Mhm. mooy est waa Cour suprême daañu nangoo statut dossier bi nga xam ne ni. ab cour la ab ci pouvoir boo xam ni daanaka li ko fi dese léegi ci at bari ci ay weer ko fi weer kese moo leen fi dese mhm. est-ce que état bu Sénégal wala euh, waa cour suprême war dañoo nangu di daanu ci jeu bi nga xam ne moom la pouvoir moom la pouvoir bi am mhm. question la bu war a poser mais l'essentiel ak lu ci mantam man dama jàpp ne mhm. euh, Ousmane Sonko c'est un candidat comme tous les candidats matal na la nga xam ne moom la ko gars yi war a defal mhm. léegi li war a def mooy que nañu bàyyi dossier bi àgg ci loxol conseil constitutionnel juróom-ñaar sages yi statué bu boobaa bu ñu génnee wax na ne kii moo war a bokk ñu bàyyi ko mu bokk mhm. su ko defee ñu dem ci élection yoo xam ni élection yu libre yu transparente yu inclusive euh, ku ci war euh, ku ci mën a gis boppam gis ci boppam mais di def ay jeu pour que kii bañ a bokk ki bañ bokk. Mhm. man gisuma importance. mais Aïcha affaire recours boobu dañ doon dégg aussi ñi seen xam-xam màcc ci mhm. doon wax que le recours n'est pas n'est pas suspensif. Mhm. donc euh, peut-être que euh, ne tey jii posé na ko donc euh, si le recours pas n'est pas suspensif et que juge bi joxe woon na benn ordonnance ordonnance bi je pense que daf ko daf ko maanaam daf ko leeral fàttu fépp. li xale yi naan fàttu fépp dafa fàttu fépp. ba demander sa réintégration wax. li nga xamante ni tey jii sax dafay kase. wax sax ci contumace contumace max bi nga xamante ni moom lañ considéré woon comme Ousmane Sonko et tout je pense que mbirum recours boobu noonu. Mhm. ñi nga xamante ñoo di état bi wala l' agent judiciaire de l' état bi def recours loolu warul mën a nekk prétexte tey ji pour mhm. contrecarrer la candidature de Ousmane Sonko parce que nag bu ñu xoolee neuf points yëpp tey ji war na ko mën a remplir ndax Ayib Daffé. comme on le dit euh, c'est un gars boo xamante sawar na. Mhm. saa soo ko yónnee mu dem. Mhm. mata ndaw lool mais li muy def tamit xam na ko lool ndax saa yi suy dem day yóbbu day ànd ak huissier. Mhm. ñu def constat te yooyu yëpp dafay nekk loo xamante ni xëy na bu ñuy déposé ji déposé nañ ba pare xëy na ba muy dem di déposé ji au niveau du conseil constitutionnel yóbbaale na ko. te peut-être que loolu aussi ça pourra servir man j'ai l'impression que conseil constitutionnel bi euh, moo nar a bettu ñu bëri. ci ci élection yi ñoom est-ce que mu ngi koy am ba tey. effectivement euh, parce que on avait l'impression que tout portait quand même à le croire que bëgguñu woon euh, dossier. Ousmane Sonko dem ci euh, conseil constitutionnel. mais euh, bon heureusement pour eux parce que Ayib Daffé ak lu ñu mën a wax rek tënku na ci quand même ne yoon preuve la xam. te mhm. tout le temps fu muy dem rek day am constatation bu huissier. Mhm. ay avocat Ousmane Sonko aussi dañu koy topp notamment dernière image yi gis ngeen ko maître Ciré Clédor a bi mm-hmm. donc yooyu yëpp aussi c'est des choses yi nga xamante je pense que yoon mënu ko bàyyi noonu mu jàll comme ça avec aussi ay dossiers de constatation donc lii euh, je pense que euh, l'affaire Ousmane Sonko la <laughs> dina nekk benn jurisprudence boo xamante ne nii dinañ ko jàngal suñuy doom parce que il y a risque d'avoir des surprises quand même mën nekk jurisprudence bu instance Sangaré boo fàttali ko en 1998 moom problème bu ni mel daaloon na ko fi mais ah c'est que sax problème sax bokkut ak kaw Ousmane Sonko parce que moom problème am sax euh, Ousmane Sonko daanaka moo ko gën a matal ay dossier parce que instant Sangaré ba koy pré ba koy ba conseil di nangul jamono jooju à mu nekk candidat mm-hmm. mun naa ne sax boobu sax abul sax quittance euh, sax caution amu ko ah eh, kon c'est très important de revisiter l'histoire dafa xawoon a dafa xawoon a tardé mm-hmm. tuuti mm-hmm. gars yi ne ko kii finalement amul ki déposé gars yi nangu dossier tout simplement kon bu fekkente ne euh, euh, euh, jurisprudence boobu la nga xam ne xëy lañ ko instance mm-hmm. am na je pense que conseil constitutionnel bi fi nekkoon en 1998 moom moo fi mm-hmm. nekk ba tey peut-être nit ñee changé waaye conseil constitutionnel ak ay ba tey moom moo fi ne léegi moo tax may posé la question ñaari cours yi muy cour suprême du cour conseil constitutionnel mm-hmm. est-ce que daañu nangoo daanu ci jeu ab njiit loo xam ne nii li ko fi dese bareetul président bi fi nekk li ko fi desee bareetul. Mhm. daanaka weer ak lu teg moo ko fi desee. démb sax ci ndajam conseil des ministres sax yaa ngi sant ne kii mu ngi ci tànki tàggatoo. tàggatoo fii ñetti fan dina def discours boo xam ne mooy def discours bu mujj discours à la nation. te ce qui est sûr et certain discours du tàggatoo lay doon. Mhm. est ce que ñoom daañu nangu di topp koo xam ne nii nguuram jaar na ci ay zoom. Mhm. parce que kii bu paree dafay dem. ñoom ñoo fi resté. kon man li ñaan si ñoom mooy que nañu lire le droit nañu wax le nañ wax le droit nañu lire le droit. su ko defee vraiment ñu mën a siggi sénégalais nekk si jàmm quoi. en tout en tout cas moom la ñu les hommes passent. <coughs> les institutions les institutions euh, restent. donc lépp lu ñu def rek na rafet te ñu mën a taaral suñu démocratie wait and see cette euh, question la risque de vraiment euh, indi ay surprise yu bare bëri bëri ak lu ci mën a am ñun on observe on regarde après on va quand même commenter wala analyser l' actualité jaajëfal baax a baax si Naoumar ba comme ni ñu koy defee suba su jot on se donne rendez vous demain incha allah alors léegi léegi sans plus tarder dañuy dem jàll ci euh, la rubrique <coughs> environnement